ayca Serigne Ndiaye ngay bëre waat Serigne Ndiaye ay bëre noonu attention lan moo xew dara amagul xale ba génn na. waaw Serigne Ndiaye waaw waaw da jël avertissement. Serigne Ndiaye doole lay jaay xale yi doole la leen di jaay waaw waaw Serigne Ndiaye attention Serigne Ndiaye jël na ko waaw waaw daan na ko doole doxul jàmm waxoon naa la ko doole la lay jaay xale yi Serigne Ndiaye daan na ko waaw waaw ma ngay dem de xale bi dafa ndengeñ nuyu naa la président amateur des luttes sans frappe ma nga noonu fu làmb am boo demee fekk ko fa ak bëgg làmb làmb rek lay dund attention waaw waaw daan nan la Babou Soudiane daan na ko waaw oh. bu baasul ak Toubacouta xaaral ma jege duudu mu analysel ma combat bi diggante Famara bu baasul ak Toubacouta lan nga ci gis. waaw bëre bu métti la nara doon nag ndax e, Toubacouta moom mbër kaamil la te Famara bu baasul tamit njom mbër kaamil la lamb ji moom dina neex mais fi mu mu nekk nii nag. Toubacouta daan moom laa gën a am yaakaar fi mu nekk nii ndax Toubacouta moom vraiment ñëw na tey. moo ci gën a nekk tey. ñëw na tey ñëw na tey bu baax a baax. ñëw na tey Toubacouta ñëw tey attention Famara nga koy caxabal caxabal ba dafa sori ñu gis ne Toubacouta bu daanee Serigne Ndiaye lay am final. waaw mais Serigne Ndiaye nag da leen ëpp da leen xaw a doole tuuti waaw Serigne Ndiaye moom caaxaan daanu ko moom ndax sëriñ moom jamono ji dafa taxaw te ñi fi nekk gëw ma ne mën nañ ko daan daal. ci ëpp doole attention Famara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 waaw waaw ngi koy kal oh action sur action lay la xëy la la Famara daan na Toubacouta Famara daan na Toubacouta lay la xëy la la Toubacouta jommi na Famara ay cee ñaga noona ca final lour ba ñaga ca final lour ba diggante Famara ak tey jii di samedi le fii ci Niakhar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 aca